mbokk téléspectateurs yi ñuy am mbégte ak bànneex rek di ànd ak yéen saa su nekk rek ci seen journal de l'arène waaye nag nee naa leen plateau bi à chaque fois nii lay demee lépp rek loo xam ne rek jógee na ci làmb ji maanaam ci arène bi dinañu daal di toog fii rek daal di faram fàccal leen ko waaye nag du ci wéet benn yoon ndaxte à chaque fois rek maa ngi ciy ànd ak bu ñaawul bii di Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Ami maa ngi lay fay. naka nga yeewoo tey. waaw kon nag yàlla sant voilà Babacar ñu dem seetaan rek revue de titre bi daal di dellusiwaat ak ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 27 janvier 2021 dañ ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey fa mu xëy ñëw ci mooy combat roi des arènes bi wala boog combat royal bi ka nga xam ne nag moom moo xëy tey wax ngar daajoo yëglikaay ba mooy suñu lamb rang muy gaaw la njëkk a wax moom ama ñu ne déet ne waay mu ne ama daal la mu xamal ay fan sam ak ñu ko bëgg mooy na seenum xel dal ama leen koy wax de nee na leen li tax mooy seenum xel war a dal mooy roi bi moom ak lu mën a xew dama koy confisquer maanaam dama koy nangu jël yëkku yóbbu ko ci ki nga xam ne moom moo di Modou Lo lii mooy waxi Ama Baldé tey ci yëglikaay boo bi nga xam ne moom moo di sunu lamb ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay boobu nga xam ne moom moo di sunu lamb 2011 jàpp 2021 yëglikaay bi dafa xëy ñëw toppal ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo bokk nday ak bàyyi di lee Bordeaux muy Gris numéro un ak numéro deux ba mu mel ni ki Gris numéro un ba moom ay mbiram noonu la ci dégg moom boo bëggee dégg dégg moom dox ga daal taxut mu nekk ca nam ca war a nekk waaye itam maanaam daal moom commencé woon na di naaw waaye dafa mel ni nag ba mu demee ba bëgg a firiku daal saxi laaf ca la daje rëg-rëg mu taxawal ko yëglikaay baa xëy ñëw tey dikkal ñu ci ñaar ñooñu keneen koo xam ne ni moom ñëw na di wax ci MMA ba muy seen say yaat maloo mu RTS la mu xëy xamal mbër yi daal ña ca bëgg a def MMA jàpp na ne baax na bu leen neexee waaye xamal na leen ne daal bu dee ci wàllum xëcc wala boog lu ëpp popularité wala nit ñi gën a bàyyi xel moom nee na lamb yemut ak MMA maanaam lamb daal moo gën a a xëcc ñu ñëw di ni MMA bi loolu seen say yat maloo moo xëy ñëw di ko wax mbirum MMA booba moom ki nga xam ne ni moom moo di coach su la mu xëy di xamle daal moom ma ca Paris la France am na ay sens ngir fi mu nekk nii ngir mu am ay ba moo xëy ñëw tey dalal ko moom ma nga xam ne ni moom moo di coach su jamono muy wax ca lu mel ni kii noonu nee na tamit rëg-rëg la ko waroon dong la def ci digganteem ak ka nga xam ne nii moom moo di ngalane loolu xëy na tey wax ko waaye tamit am na ñoo xam ne jàpp na ne wala na leen a jaajëf jaajëfal bu bu Sénégal demee tey bay suivre MMA ne na ka nga xam ne moo di Bombardier mu Mbour ak Rocky Balboa ndax lu jiin njaaka kot su jamono daa jàpp ne ñaar ñi ñoom ñoo di njaak kii moom la mu xëy tey di ko wax moom moo di Ibrahima Faye Beus wala boog Xavier Seck ma nga xam ne moom mooy directeur technique u Beus Pro moo xëy tey di wax na ne daal pay-per-view fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg-dëgg nekk na loo xam ne nii moom moo mën a dimbali promoteurs yi ci jamono ji ñu ne ak yeneen jamono sax ngir li ñuy dugg ñu mën cee génn ndax jàpp na ne moom Xavier pay lu ama am solo la yëglikaay ba moo xëy dalal ko mu wax fa wax jan wu yaatoo yaatu moom saf yi jàpp na ne tamit daal combat boo xam ne nii bu mag la maanaam événement yu baree baree bari yoo xam ni daal pépéri bu ca duggee moom loo ci mën a dégg moom ndam dong les tey jëlee moom deesu ca mën a jëlee jàpp na ne tamit pay per na des na ko liggéey liggéey ba nga xam ne daal maanaam billet stade ya war na koo mën a remplir maanaam daal jël place ba maam Xavier daal moo xëy tey ngar ngardaajoo sunu làmb seq ak Abdoulaye dimbale waxtaan wu yaatoo yaatu keneen koo xam ne nii moom moo yor làmb jooju nga xam ne moom la ñuy xaar mu ubbi moo xam des koy pépéru wala nun kay def muy Bira Sène Bira nag moom yëg li kaay ne saison bi nga xam ne mooy 2020 jàpp 2021 fi mu nekk ni moom mu nga toog daal jatu nib soccet di déglu ka nga xam ne nii moom moo di ministre ba yore sport ba di mataar ba yëg li kaay bi di sunu làmb moo xëy ba tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom yëglikaay bi ñëw na ci moom muy bugaan mi nga xam ne nii mbër la bugaan mii bëri ci làmb ji bugaan daal yëglikaay bi ne fi mu nekk nii moom compétition fi muy jaar ak ba jóg naawat jëm ca kaw loolu la yëglikaay bi xëy tey sampab laaj di ko laaj moom sunu làmb ma taxoo fa dem record record moom ka ñu xëy tey dalal mooy Mamadou Diouf ma nga xam ne moom mooy coach bi nga xam ne ni daal coach su bu extra test la wala la boo xam ne daal daa mel ni moo gàdduwoon rëg-rëg ko fa nga xam ne nii moo doon ca Singapour xëy na tey moom di wax ne na fi mu nekk nii daal seen bët la ca tege wala bëtub rëg-rëg daal mooy fexe ba MMA bi moom rëg-rëg nekk ci ki nga xam ne mooy numéro un ci àddina bi maanaam numéro un mondial daal loolu la xëy tey di ko wax moom Mamadou Diouf ñeneen ñoo xam ne ni moom numéro un lañ bëgg doon ci làmb ji ba tax ñu boole seeni doole muy Fass ak Ndakaaru yëglikaay bi xëy na tey moom record xamal ñu ne boo sàgganee day ci fan yu néew daal fi mu nekk nii la ñuy waaj moom wala boog pare nañ ngir fas yéene nag ànd commencé di entraîner ca la nga xam ne nii moom lañ fi doon jow muy àndandoo bokk nday bokk baay def écrit Fass ak écrit Ndakaaru muy benn écrit loolu mooy loo xam ne nii moom la ñu record xëy xamal waaye Equivox su moom buñ fa demee lan fay fekk mooy waa yi ak ba nga xamee ne rëg-rëg jongante na ba pare daal micro trottoir bañ fa defoon daa mel ni ki ñoom itam wax na seen am mbégte ak seenum kontante ci seen doom da nga xam ne moo di rëg-rëg ak itam di ko ñaanal ñoom waa yi lii la def moo tax hélas mbaax say mbokk buñ ko njëkkee xam defe naa day gën a wóor moo gën mu dem ci biti loolu la olof naan sàmba àllar yàlla nañ ci yàlla musal hélas na waa passé xam sak mbaax ba pare waa ndakaaru door koo xam moo gën a wóor ndax fa nga soqe ko Samba àllaar àll bee koy gërëm comme ni ko Babacar bamtuwaatee léegi rek yàlla nañu ci yàlla musal te Babacar sax nag wax sa mbaaxu morom dafa yàqul dara ci sa mbaax waaw waaw olof ne sukk te mm-hmm. seka borom royal band àll mm-hmm. bee koy gërëm soppi jikko kon yàlla nañu yàlla musal ci jikkoy Samba àllaar rek ça veut dire que loolu bu ñu ko waxee mooy mbay mm-hmm. sa wewu tànk nit ki moom sa mbaax defe naa ne ko saw mbokk gënee xam dina gën a wóor mhm. waaw moo gën baax ci biti te boo ñëwee ca nga bokk ah duñ ko mën a xam loolu lañuy wax rek moo tax yàlla nañu daal mhm. la ñu soqe ko mu law ba dem feneen ak di rek commencé ak yéen journal bi bi de suñu làmb ñu daal di ñëw ñun ci combat Ama Baldé ak Modou Lo fi di taxaw rek dëggal boppam nee na daal fi mu nekk nii moom daal couronne bi jël yóbbu rek la ci xam rang muy gaaw. rang problème dix mille problème. maanaam waaw moom loolu moo lay wan ne moom la ma mës a gëm si bopp bi rek. ci mhm. loolu lay dox ba tey maanaam ba muy dugg ci làmb en tant que doomu Falaye Balde. Mhm. mais dugg ci moom en tant que Ama Balde bu boppam. Mhm. dafa bëgg a bëgg a nekk numéro un pour nga nekk numéro un nag amee il faut nga fexe. jàmmaarloog kañuy jàpp ko daan tey nag yàlla may na ko war a jàkkaarloog kiñ na mooy actuellement numéro un ci làmb parce que ku nekk roi des arènes yow yaay numéro un numéro un bi mooy kan Modou Lo mu war a jàmmarloo ak jàkkaarloo ak moom mm-hmm. muy combat boo xam ne du yomb waaye li mu gëm mooy day nekk roi des arènes mm-hmm. te day jël couronne bi ah loolu nag li ñu wax rek actuellement buñ mm-hmm. tolloo ci communication nappante wax na fi ama tey waxaat na mel ni kon ba tey wax dañuy ñaan yàlla rek yàlla bàyyi ba ñu yegg si combat ak jàmm amiin ñu xool ñoom ñaar moom am na confiance ci boppam loolu rek la tubaab di confiance en soi ndaxte Babacar booy dem xare sax di yaakaar ne yow dañ lay gañe xamal ne boo demee dinañ la gañe déet ami déggoo li ma la wax nit moom da ngay wóolu sa xamal ne du boppam dañ koy wax mais nit mhm. du gëm boppam moom mooy yow ngëm nit day wóolu boppam mhm. ca la mu nekk mhm. yàlla na fekk nag muy lu jub waaw foofu la ñu foofu la ñu koy waxee nag wóolu na boppam tey ci li mu ne parce que doomi mbër la mais moom mbër la ci wàllu boppam ndax moo ko liggéey ba nekk ko te muy dëgg ba tey rek ñu ñëw ci euh, combat MMA ki nga xam ne moo di euh, sensei Yatma loo daal di euh, dikk ak ñun ci mbër yi nga xam ne dañoo bëgg a pratiquer sport boobu noonu mu xam leen ne lutte avec frappe maanaam euh, li nga xam ne ñu ngi koy def fii ci suñu réew moom moo ëpp visibilité ci la leen nit ñi di gën a xam que MMA bi. waaw maanaam nit ñi eh, eh, eh, maanaam lamb ji lañ gën a bàyyi xel quoi mhm. seen say yaat ma loolu moom defe naa su waxee loolu dinañ ci war a man a bàyyi xel mhm. xam nga parce que li tax mooy nekkul n'importe quelle personne si réew mi tey defe naa sport de combat am na lu bëree bëri lu mu ci jàng lu mu ci xam mhm. wala lu mu ci maîtriser yaakaar naa itam te lamb moom yëmul ak dara ci wàllu popularité moom fii ci réew mi wax dëgg yàlla parce que xam naa ne tey rëg-rëg buñ ko xamee grâce à lamb ji la xam Balla Gaye xam Modou Lo xam Gris Bordeaux Eumeu Sène ak Tapha keneen ak keneen mhm. defe loolu moo lay wan ne làmb moom li yaat ma wax mhm. waaw yimul ak dara ci côté popularité bàyyi xel bi duñu di bàyyi xel ba tey rek ñu des ci rëg-rëg googu nga ñëw kii nga xam ne moo di coach Jabong li mu xam ne rek mooy rëg-rëg am na chance doon Euh, am ay sponsor yegg fu sori ci li nga xam ne rek moo di MMA bi. bien sûr waaw parce que bu dugg na ci te mu ngi ci commencé di dem te bu yàggee di dem ba am ñu lay sponsorisé. Mhm. te loolu lépp bu avantage am lay doon ñu ngi koy ñaanal yàlla rek. yooyu su Jabang wax yàlla na ko wuyu si coach su Jabang tamit nekk koo xam ne moom. xam na sport de combat nekk entraîneur de boxe nekk ci Paris di suma xarit ma koy nuyuwaal di ko ziar di wax ne daal loolu a ñu ñëw ci ñaar ñi nga xam ne rek mooy ñaari Gris Gris 1 ak Gris 2 ñoom nag euh, mu mel nii rek élan ba ñu amoon dafa daal di euh, wàccaat temps yi nii loo ci mën a wax. waaw loolu moom boo xoolee bu dee giri numéro un mhm. am na benn moment boo xam ne nii teglante woon na ay ndam. Mhm. ñu dem ba benn moment ah yi xaw a jaxasoo mais bu continuer mhm. ba daan fi tay seen jógewaat fi bëriwaat ay combat ñàkk fi diggante ma Modou ñaari yoon gañe fi bàyyi ba ñoon toogaat ñëwaat bëriwaat ak Balla Gaye ñàkkaat boobu combat par ay décision arbitrale muy loo xam ne nii ah euh, xëy na. lu maanaam elam moom xaw na coupé ci côté ba boo ko mhm. xoolee Gris 2 tamit moom ay ndam mës xam defet mës mhm. ta xam defet di bëri di bëri di bëri di daan ba yegg si ci Reug Reug muy dernier combat mu ñàkk ko kon moo lay wan ne sax moom boo xoolee at yi ñu génne wax dëgg yàlla moom moo gën a baaxle magam Gris Bordeaux mhm. tracé bu mu aw loolu nag moo lay wan ne sport moo tëdd noonu ah des fois ñëw ci bés nit ñi xalaat sax ne yaay daan nga ñëw ñàkk sport moo tëdd noonu quoi mais encore une fois xalaat naa ne bu ñu liggéeyaatee parce que c'est des professionnels am ci kàttanu yàlla ñu tegaat fi nga xam ne nii moom mooy mbir yi ca yoon wa mhm. dëgg la bi nga xam ne dañ koy seetaanee làmb mu am bu ñu ci wax rek pay per view ki nga xam ne rek moo di directeur technique de Boss Pro daal di ci dikk alternative boo xam ne rek dina arranger promoteur yi loolu pay ah. mhm. ma koy nuyu saf yi moom tam suñu nit la mhm. di nuyu waa Boss Pro yëpp rawatina Ibrahima Faye Boss defe naa ne li mu xëy wax daal moom jàpp na ne wàllum pay per view jàpp na ne lu war a mën a dimbali par rapport ak li ñu jëm. Mhm. waaw effectivement parce que pay-per-view moom dèjà ñëw na Sénégal essayé nañ ko te actuellement nit ñaa ngi ko commencé miin kon yaakaar naa li ci des rek mooy. gën mhm. ko ñoŋal gën ko sécuriser gën ko teg ci yoon ba nga xam ne tey saa ko defee ci benn combat nit ku jënd a seetaan di nga mhm. seetaan nice mat doo benn jafe-jafe defe naa ñoom bu ñu waxee loolu dañuy gën a dalal xelu nit ñi rek loolu defe naa ne loo ama ama am solo la di leen nuyu bu baax a baax defe naa tamit su euh, ñu nekk nii tey di Equivox bi ñoom itam pay-per-view ñu ngi ko war a def yaakaar naa ne firi euh, firi lañ ko tudde ah mhm. kon defe naa yooyu yëpp c'est des mbir la yoo xam ne daal mhm. yàlla nañu yàlla dimbali daal ba saison bi ubbi su ko defee ku ci nekk def sa pépé ñu mhm. xool parce que tamit loolu yëpp nouvelle technologie bi moom moo ko waral quoi àddina moo tëddee noonu ak tamit dëgg ba rek ñu ñëw ci ouverture saison 2020 2021 ki nga xam ne moo di Birane Sène Bira euh, jiite lamb ji rek euh, mi ngi toog di xaar di déglu ki nga xam ne moo di Matar Ba waaw moom di ministre mu jiite lamb ji Bira ngi déglu waa mhm. la ñuy déglu mhm. ndax yaakaar naa ne lamb ji moom ah man de la ma ci doon wax rek am naa ci tiit ren de pour mu mhm. ubbi ren ji ma jaaxal man Babacar ñoom mu du am de waaye daal fi ne nii moom xamaguñu ban tànk la ñuy dugg ci géew gi fecc en tout cas nam nañ ko de. ah nañ lam trop ay takkusaanu Balla Gaye Modou Lo. waaw ñoom it Balde. waaw oh nam nañ loolu trop. Babacar ay Boy Niang ñoom ñëpp. ay ay mbër nag. ay wax lii ah? mhm, tamit dëgg loolu. ma tey rek ñu des ci combat MMA ki nga xam ne moo di Mamadou Diouf Mamadou Diouf di coach extraterrestre bii nii. daal di dikkaat ci combat rëg-rëg yi moom daal xam na ne kii di rëg li muy séntu rek moo di numéro un mondial maanaam nekk roi des arènes daal. ci ci ci MMA ci MMA bi. waaw loolu li koy wax rek ngi am mhm. fulla di am fayda di mhm. la di am mhm. maanaam am kilifa bul xalaat ne loo war a a nekk ci bi nit daal lii li li liy dégaam te yàlla ñu si yàlla musal kilifa rek moo xam ka ne ca MMA ba ka ne ki ci micro kay jaay gerte ñun ñëpp ku nekk daal mm, na fexe bi la yàlla joxe kilifa ba pare nga nangu ko te topp ci ginnaaw mm, xalaat nag bu ko defee moom rëg-rëg mm-hmm. continuer ci mm-hmm. ah, moom xale boo xam ne ko am jom la te loo ko conseillé rek da koy suivre waaw loolu moom defe naa ne moo ko indi tey ci niveau bi mu nekk ah, mm-hmm. parce que xale la te bëgg na li muy def te yaakaar naa itam ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo lay wax boo dugg see kon mhm. a xam mhm. a a dem defe naa loolu mooy seetlu boobu nga def moom defe naa ñu ko si moom mhm. ah, voilà Babacar dafa mel xibaar yi ndar kepp na waaye loolu balaa ñuy pare dama lay laaj pourquoi su ma defee cap nga def cap ma def pull des nga def pull waral loolu waaw est-ce que du xol day gisee mm. xam nga mën nga maa nopp te doo ko xam <laughs> te sax Cheikh Bas ñun Equivox waaw waaw Cheikh Bas na. dafa am xew day la sax le 11 février. ba pare que moom fu ne mu nga fa. xam nga mm. Cheikh Bas yàlla daaf ñoo lay xaar. non ñun ñëpp Equivox su kay groupe bi nañu pare seen ndaw doon ko Cheikh Bas. te bi ci suuf wala PDG yow lay wax yow mi ci suuf ak DC bi ci kaw mm. di Aline Badara Diouf ak El Hadj mi directeur technique bi mm-hmm. ak ñëpp ñi fi ne ñoom xulleeg ñoom Abdou Saliw ak Gomis ak képp ku fi nekk rek mm-hmm. pareel Cheikh Bass day xew la onze février te muy dëgg ca Touba Mbacké mu koy nuyu di nuyu ñoom Younous ñaa ñi ñëpp a ngi fi di commentaire vidéo yi ay Malick Sarr Pape Ngom ah Lamine ñu yégal na ko waaye xam nga Babacar dama di jigéen man sama ndawtal bàyyi naa ko sa loxo dégg nga. amul muskila dinañ ko gérer. dinañ ko gérer amul benn problème. kon Babacar neex na looy tàggatoo tey. xanaa di nuyu rek ka nga xam ne ni moom moo di Ibrahima Tour ñu koy wax Ibrahima di taal bi suñu Babacar si.